bokki jullit yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla na nu yàlla boole jéggal te dox ci suñuy diggante ak suñuy moroomi jàmm ba lii muy wax ne bu ëllëgee ñi nga xam ne ñoo ko déggaloon seenum xel day dal ndax la ñuy dégg mooy udxuluha bi salaamin aminin dugg leen aljanna te ànd ak jàmm aljanna doy na sëkk jàmm waaye bu ca booleewaat jàmm àjjana ju yéeme lay doon ju am kaaraange waaye def na nag loolo day fekk wa nazaana ma fi sudurihim min xillin ixwanan ala sururin mutaqabilina la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bi muxrajin yàlla na nu ko yàlla defal bala noo ñëw ci tomb bi ñuy fàttalante dañuy yëkkati kàddu njaal di ko jëmale ci mbooleem suñu mbokki Afrique yépp ci suñu doom yi ñu ñàkk rawati nag ñi nga xam ne ci biir ndox mi lañu des yàlla na leen yàlla yërëm yàlla rekk xam seenub lim ni mu xamee lim yi ci des laqad ahsaahum wa addahum adda yàlla na leen dugal ci yërmandeem ñoom ñépp te defal nu nun ñii di seeni bokk xolub muñ suñu boroom mi ngi wax ci alxuraan ne bu ëllëgee ñi nga xam ne wooteb sallallahu alayhi wa sallam agsi woon na ci ñoom ñu taxaw ne ku ne ñëw wax ñu taxaw ne ba faatu dikk bu ñu faatoo bu leen yàlla di àtte ëllëg di leen di wax waaw fu ngeen nekkoon ba bokk leen ci woote bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne yaatu woon na lool de ñoom ñu ne fañ nekkoon dañ leen fa xataloon minorité lañ fa woon yàlla ne xanaa foofa rek moo fa nekkoon ci suuf si alam takun ardullahi waasiatan fa tuhajiru fiha fépp foo xam ne mënu faa defee la nga fa bëgg a def tam neex yàlla demal feneen yàlla jeexalu suuf yàlla na leen yàlla yaram ndax ku xam faatoo cib laal rek na mel waajtaay wa nga xam ne day am ñooñ dañuy mujj génn waxaale wuñ nag di naan ndox moo xam ne suñoo ko bañ a naan ndox may dugg ci yow waaye soxla woo ko ba yàlla dogal ca lam ca dogal lu metti la waaye suñu boroom waxoon nag ñun ci alxuraan ñun julliti bu yàgg ne bu leen dara jaaxal ndax yàlla tudd na ci alxuraan kenn ku toog cib lalam dee fekk ko fa mu dee tudd na ci alxuraan mbooloo mu jëlandoo waaye nee na ñoom ñépp ku ci daa am dig boo xam ne mënu ko weesu wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun maalum loolu mooy mbooloo mu àndandoo deewandoo xamoo ko ku jëkk dee da nga leen di wàññi rek naan nangam lañ waaye xamuñ kan moo jëkk dee te ñi jàngale miraas nee nañ bokk na ci mawaanixul irs ñu dee te xamuñ kon moo ci dëkk dee te war a doonante kon du lu yees wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun maalum mooy mbooloo moo xam dañoo faatoondoo yàlla noppi woon na ca bu yàgg fañ ko war a defee yàlla noppi na ca kenn mënu koo teggi waaye kenn ku nekk ci néegam faatu it mooy maa tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastaxiroon li kulli ajalin kitab dogal bu nekk yàlla teg na ko ne loolu yow mën a xam ci suñ jamono bari na ci ñooñ bu ñu bëggee teel a xëy wala yuqu li ñuy wax yuqu ci diggu guddi mooy dañuy fab seen montar yóbbu ko ca waxtu wañ bëgg mu yee leen suñ ko ko defee laata ñuy tëdd dutuñ ko laalaat saa bu agsee ci waxtoo bu leen fekkee ñu nelaw ak ñu yeewu moo ca yam dana sonn noonu dogal suñu borom mel li kulli ajalin kitab waaye nag moo waxoon ci alxuraan it ne wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut lim na juróomi yëf yoo xam ne nee na moom dong moo ko xam kañ la bis pénc kañ lay taw jigéen ji lim ëmb góor la am jigéen jiw lan lay am bu ëllëgee ci bénéfice rawati nag fan lay deewe wa maa tadri nafsun bi ayyi ardin tamut kenn xamut fu muy deewe dana gis fii ci réew mi ñoo xam ne mën nañ tuuti seen bopp yàlla leen ko may bu ñu wéradee seenam xel du nekk fenn fu dul génn réew am na ñoo xam ne bu ñuy àgg di faatu mënuñ ko daw daa jot dig ba agsi kenn xamul lu leen di yóbbu te day gaaw lool ñu yóbbaale lu bari waaye lu bari la du fa am njariñ dig ba rek la ñuy jëli waaye am na ñoo xam ne dañ fay dem ba tane bañ na leen mën ngeen a ñibbi ndekete foofu du seen suuf suñu war a faatoo waaye bu ñu agsi ci réew mi ba nuyoonteeg ña ñuy nuyoonteeg ñépp ba ñëpp gis leen ñu gis leen dig ba agsi ñu faatu am na lu ñu fa doon wuti fepp yañ fa doon lekk ka naan lañ mënutoon a ñàkk lekk yàlla na yàlla defal mujj gu rafet waaye tënk na ko lépp ci alquran ne wallahu yaxkumu laa muaqiba li xukme yàlla bu xasee ba àtte amut recours lu ab laykat aay aay munta layoo ak yàlla ndax layoo bi moom fii rek lay yem tooñ ko duma ko fii rek la am waaye lépp mii jàkkaarloog moom suñu boroom dara du ko rëcc ñii àtteeg ña leen di àtte ñépp neewoon na kulluhum aatihi yawma alqiyaamati fardaa kenn ku ci nekk par kenn mbooloo moomu di faatoondoo it kenn ku ci nekk akuk faatoom dara ump ci suñu borom yàlla na leen yàlla yërëm te jéggal leen moo tax suñu borom ne ndax jotut xol yi dekkiwaat fàttalikuwaat suñu borom ak yi ànd ak fàttaliku suñu borom rikk buñ dem ba àgg ca fa gaay àggoon dund gi neex lépp na gàññ xol yi gën di di gën di woos ba yàgg mu wow koŋ xol boobu nag mooy xol boo xam ne waar mënu caa duggati lu neex rek lay jël alam ya ni xanaa jotut lillazina amanu an taxshaa qulubuhum li dikrillahi wa ma nazala min alxaq la daloon gaa yi jëkk yi bu mu leen dal taala alayhim al amad dund nañ ay at di dund di dund amul ordonnance dund gu yàgg goo xam ne dara jotu ko li mu bëgg mi ngi koy am lépp ba yàgg mu fàtte nga dañ ko mayoon rik bokk yi moom ñu dal moo tax suñu borom ne kuñ fàttali fàttali mu të bàyyi leen ko rek muy lekk ka naan ak a bànneexu rek lu mu jot ne leneen bis dana ñëw mu xam ne yàlla rek mooy dëgg zarhum yakulu wa yatamatta'u wa yalhihim al amalu fa sawfa ya'lamun yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas naa laaj benn bis di di xutba ba yàgg mu wax ne waaw yéen ñii ku ci bëgg a dem aljanna jataay ba mel ne day riir ñëpp ne ñun ñëpp mu ne am na yoon wu gàtt woo xam ne ku ko jaar te wàcc ko léegi mu dem aljanna ñu ne teg mu ne da ngeen di fexe bay gàttal seeni mébét maanaam li ngeen di am na leen di doy bu mu leen tee wuti nag waaye wut na ngeen cay rafet ñaareel ba mooy na ngeen saxal seen dig bisu bisu faatu ci seen kanam saa su ne ngeen defee ne suba lay doon su dee guddi la su dee bëccëg ngeen defee ne balaa ngoon la ñetteel ba mooy ngeen ëmbal yàlla kersa seen diggante ak moom ñu ne ko ah kersa ñu defoon na ay bët la wala ay gët mu ne waxi wu ma foofu kersa suñu diggante ak suñu borom mooy bopp bi nga xam ne nit da koo yor luy dund yor ko lépp nekk ca na nga fexe ba ya nekk ca bopp bopp ba moom nga sàmmoonte ak moom saa su ne nga di ko wax ne ko yàllaa la moom moo mën a dénk muy sa nopp yi nga fexe ba loo ciy dégg nay doon lu baax say gët dee ci xool lu baax lu rafet saw làmmiñ dee ci génne lu baax tamit loo xam te bañ a doon tëll ma rajax rek dégg tëll rek ñu ne dee na de dégg gone gu daanu ne tàyyi mu ne dee na loolu bokk yi wax lu dul dëgg la ku dee du jooy xale bu ne teel la bañ na dee na li si tuuti nga dégg muy jooy ñu ne dem leen jël ko nax leen ko wax na foofu lu dul dëgg mooy ñàkk téye aw làmmiñam da ngay dem ba àgg xool su fekkee daa aaja nax rek wala moccal ko bopp bu rëcc wala dënn bu rëcc ñu yam ca waaye tégg tégg teel na dee na ñu dem fekk xale bay dund di caddi caddi di di jooy loolu ay fan la moo tax làmmeñ lu mat a wattandiku la waaye biir ak li aju ci biir lépp bu ñu tuddee biir mooy tàmbalee ci biir bi jëm suuf lépp biir bi lu tax mu tudd ko mooy ci la ñu di def lu muy lekk ak a naan ñu yaakaar muy dund foofa it la nga fay def na seet wécc waaye bul def loo romb rocci ko rek bëgg koo dundale sa biir moo xam muy luñ la jox ba noppi wala loo xam ne da nga yaakaar ñu jox la ko bala ngaa wax neel tekk booy lekk na nga xam ne ngay lekk na mu doon ak li ngay jëfandikoo lan la lekk nag lañ tudd rek waaye mbooleem lu ñuy jariñoo liy dugg ci biir lekk ba ca topp mooy nee na di fàttaliku dee saa su nekk saa boo déggee diw dee na rek nga def yaa cay topp te it rawatina nag ku dee fi muy mujj léeg-léeg ñu gas ci armée li gis ay yaxi kese wala kawaru kese ana jëmm ja ndax ku ne tuumaal boppam ne man mi fii lay mujj su boobaa dana tax nenkaanam yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam mu bàyyi ko xel lool di fexe bay dégg ci ay noppam lu baax rek di fexe bay xool lu baax di fexe bay wax moo ci raw nag lu baax rek nee na nag ku bëgg al alaxira dara dara dara mu néew mu bari ah na fi bàyyil adduna waa adduna ñi ko soxla kese na bàyyeeg adduna ñi soxla adduna kese kese moom tuddëg la alaxira daan ne ku ko def nag na ko wóor ne doxale na digganteem ak suñu borom kersa ndax la muy moytu mën naa nekk mën na faa nekk moom kese moo tax Sayyidina Ali bi ñu koy leeral dane kon kat na ngeen xam ne luñ la dig luñ la jox ba noppi nga jàpp ca nga yor ko ba noppi ñu digaat la teg ca nga bëgg caa jot xanaa xamuleen day fàttali nit alaxira ala wa inna al amar yunsi al axirata am na keneen ku wax ne Daawud Attaay nee na képp koo xam ne lu mu teg loxo seetatu ko la muy yóotu la am soxla la muy def lépp ab safan mën na caa gën a bari ndax du xool fa muy teg tànkam jot si rek lay xalaat man taala amaluhu saa amalu kon boog waxi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom alquran a nga noonu alquran nag su waxee ay waxam mooy dëgg saa su nekk day àtte waa jamono saa su ne mën na leen a àtte bokk yi gis nañu ba tey luñ tuddee lu wóor te dara wóoru ca fekk yàlla noppi na ca moom bokk yi su fekkee lu wóor mooy fooy dem nga xam fan la am loo fa demee mu mën faa dem nga amub yóbbal bu fekkoon ne loolu rek mooy lu wóor kon lu wóor amut ñaata ñooy jóg tënku ci sartu yooyu lépp mat ñu des ci diggante bi bu loolu soree xanaa dara gënta wóor moom bañ a dem fenn nit ki ubbi këram tëj buntu kër ga dugg ci bëti tabax bi ubbi buntu tabax ba ubbi buntu néegam dugg sa biir tëj buntu néeg jëla bub lalam tëdd ci kaw lal ba sàng xanaa kooku war naa mën a mucc am na fii fi Tuubaa koo xam ne ñi jëkk a jàngale ci jumaa jël ci la bokk darul maarif al islamiyya bi ci jumaa ji ba muy soog a ubbi sëñ Abdourahman bu ñu koy wax sëñ daam nii ma wax la def këram mi ngi ci wetu mi ngi woon ci wetu jumaa ji ab oto jógee fële ñaaj seng ba jàll la daane permis ci kawam nit ñi ne ah ginnaaw suñu daama nga fa woon day mënta jóg nit ñee ko wax lii xew lu mu doon daa jóg rek ne lu mu doon ñu ne ko oto de moo nekk nii ci sa pegg kon wa man yatawakkal ala allahi fa hasbu yàlla rek moo mën a aar mu tax suñ bi ne ximal xafidil maanii yuxni an il madafii li kulli abdin xaasin yatlubu xayral kon fenn fu wóor amul yàlla rek moo wóor kii jóg nag na xam li ko tax a jóg rek kii jóg ak fu mën a jëm su fekkee lu baax ko tax a jóg day dugg ci baatub wa man yuhaajir fi sabilillahi yajid fi l ardi fi l ardi muragaman kathiran wa saa wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ila allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu lmawtu faqad waqaa ajruhu ala allah wa kana lahu xafurun rahima ñi faatu ci seen i néeg ne ci lu wóor taxu leen a faatu ak yéene yi mën a am ci dugg ci seen biir néeg kon nañu rafetal njort yi tey yéenante jàmm tey xam ne nit ki suy dund nit ñi mën nañ koo àtte ci yaa def nangam bu ko bañee ñu ne ka ko fekke woon mu ne moo ko diw ne moo ko fekke woon bañ saxal ne moo ko def wala mu ñëwal bopp ne moo def nangam waaye nag nit ki suñ su laqoo suñu yëgët faatu na nañ ko bàyyeeg yàlla rek te ñaan ko yërmande suñu borom li may tëje mooy di masawu it ñi nga xam ne ay kawaris yàlla ñëwate ko dogalam jaarale ko fa ak fu mën a jaar xañ leen benn bis lañ amoon lépp am na fan yi ci ay ja ja mooy marché am na ci ay tool yu ne gàññ am ci ay kër yum yóbbale waaye ñoo ñépp nañ xam ne nit ki lu mu amoon moom lay ñàkk nit lu mu amoon rek lay ñàkk te bu dee fu sa war a jaar jàll xelu nit war naa mën a dal ndax ñi xam àll bi xam nañ ne fu ak daay jaar daaw bu tawee mooy gën a dëgërum ñax mooy gën a sëqum ñax yàlla na ko yàlla doxale noona te moo leen xoolu muñ te gën a góorgóorlu tey moytu lu bari ci wutiin yi rek yàlla na yàlla defal xolum muñ di ànd ak ñoom ñëpp ñi seeni bokk te suñu bokk la ñun ñëpp ñun ñëpp doomi Afrique lañ ak fu ñu mën a dëkk ci Afrique rek suñu bokk lañu ndax bu ñuy lim duñ ñu xàmmee kon fa africain mën a nekk rek ci la bokk waaye bari na ci yëngu bopp nit da ko yëngu ba faatu fekk ko ca te fekk te fekk ko jom moo ko ca dugal ak am lu muy bañ am na ku ñëwoon ci suñ Faliilu Mbakke ne ko fi ne nii moom su faatu woon yorul kenn bor mu ne ko yaa ñàkk jom yow su àdduna sépp meloon na yow suuf si ràbb su boobaa kuy leb fu ñuy jëm ndax yow amoo looy leb lekkoon demal kañ na ji jëfandikoo aaya suñu borom bi muy wax ne huwa allazi jaala lakum al arda zalulan famshu fi manakibiha booy bëgg dara lu mën a doon yaag ñëpp a yam di bëgg loo bëgg yoroo ko demal jéem a wuti liggéey soo liggéeyee amoo ko demal lebi waaye bul ñaane famshu fi manakibiha boo fanaanoowu dara dil xëy rek xëy rek topp mbedd yi mbooloo moroom nga nuyoo fa maslaa fa jàll mën na am nga fekk fa kook yàlla da koy xëy ki dimbale nit rek mu dimbale la wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur te ngeen di rafetal aw wutiin xam ne ëllëg si biir nushur day am maanaam yàlla day dajale ñëpp di leen laaj kenn ku ci nekk lam amoon fu mu ko jële ak lu mu ca jot a def yonent bi nee sallallahu alayhi wa sallam bu ëllëgee yàlla dana laaj ay yëf nit rawati nag ñi nga xam ne alal rek lañ gis jaral na leen lu nekk nee na dana ko ci laaj ay laaj waaye bokk na ca foo ko jëlee ak loo ca jot a def laaj bi ko suñu borom di laaj nag tekkiwut da dul xam bokk yi lan yu alxuraan di waxe tënk nañ ci ne laaj am na ay xeet am na laaj boo xam ne ki koy laaj moo ko gën a xam ki mu koy laaj wa maa tilka bi yaminika yaa Muusa ba ko yàlla di wax Seydina Muusa tekkiwut ne yàlla da xamul ne Muusa aw yat la yore waaye ci dégg suñu suñu borom Moussa dégg suñu borom alayhi salaam ne hiya asaaya bu nekkoon aw yat kese la du ko jox cër ba hiya asaaya atawakkau alayha wa ahushu biha ala ganami wa liya fiha maaribu uxra sama loxo de aw yat laa ci yor woo xam ne moo may dimbale bu may dox ndax fi ma toll moo ko waral ñaareel ba it ci laay gësamale sama jur gi xobi garab yi ñu di ci lekk maanaam gortal waaye am naa ci yeneen yitte it yoo xam ne yaa ma ko gën a xam qaala alqiha ya muusa fa alqaha fa ida hiya xayitun tasa kon yàlla xamoon na lépp li ci nekk ba xam ci loo xam ne Seydina Muusa xamu ko woon xam na ne bu ko sànnee mën na mën na ko def jaan innama amruhu ida arada shay'an an yaqul lahu kun fa yakun kon mooy laaj bi nga xam ne ki koy laaj moo ko gën a xam ñi ngi koy laaj am na laaj boo xam ne itam ki koy laaj daa bëgg a xam daal ana yoon dëkk sàngam bañ a réer waaye am na laaj yoo xam ne it ki koy laaj daa bëgg a wax loo waa ji lu dul dëgg da ko bëgg wax lu dul dëgg naa ko dëkk bi ñaata garab yi guy moo fi nekk ñaata dimba fi nekk ñaata daqaare fi nekk loolu du laaj laaju laaju bëgg weddi ay waxam waaye am na laaj yoo xam ne ñaawalaate la bari nay xeet waaye suñu borom moom buy laaj la muy laaj jaam bi ëllëg tekkiwu ne da ko xamul atte moo laaj loola yàlla na yàlla dafa dëgg topp te musuñu seytaane nekk paxem yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin